mu ni wa ama siyaamu muharram wa muharram ak weeru muharram yonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko daan woor ni ku mu neex nga woor ko ku mu neex nga bàyyi wa sha'baan ak weeru baraxlu yonente bi sallallahu alayhi wasallam daawul woor weer wu mat sëkk ci at mi lu dul koor waaye Aïcha nee na musumaa gis mu woor ci weer lu ëpp li muy woor ci Shaaban léeg-léeg mu woor lépp xam ne ñoo ci xadis mu ni kaana yasuumu fi Shaaban kaana yasuumuhu illaa qalilan bal kaana yasuumuhu kulluhu mais boo firee lépp lépp wolof bu waxee lépp mooy la ëpp lépp bu nekk loolu lay firi la ëpp waaye yonent bi li wér mooy musta woor wenn weer ba mu jeex daana wor Shaaban nag lu baree bari am ñu wax ni doo romb digg ba nisfu Shaaban ñun ñu daa di koy dégg rek nii su soobaan nii su soobaan mooy boo dee bala quinze quinzième jour ba rek nga wor ko ñu ni ba looñoo yonente bi ne nañ wor nii su soobaan nii su soobaan bi maanaam nisfu Shaaban liñ ci jublu mooy woor ilaa nisfu Shaaban maanaam dagan na nga woor ba ci diggu Shaaban te mooy baraxlu waaye néewuñu la nga di coppat rek digg Shaaban woor ko donte kenn di wax ne lu baax la waaye nag dappetoo ko ak jàpp ni ak jaamu yàlla la fala danger ba nekk